di ma ci fajal la gëj jaw mom bor du senuk te ooma ya ya yaa tax ma jog ya sama tante nee na tax ma jog na defal lu nekk bu soobe yalla man ne na la yalla defal jamm say ma ooyee maa ngi koy ñaanal di nuyu astu ndjay madame le maire di ko masaw rakam la tamen par na ci japp na ci bu baax baax sama neeg la yandu di ma masaw di toog ak man di waxtaan waaw ku na yoon def liggéeyam fu mu deeyee noonu si Allemagne maa ngi leen di ñaan ñu def seen liggéey affaire bi gaaw xale bi bi ko doore nii bettul ma ndax lii da koo liggéey xale la mais ku ñëw ci dëj bi nga defee dëju kilifa la toujours maa ngi wax ne man maay imam jàkk bi man xam naa kuy absent xam naa ku dul absent kii na saa yu fi nekkee noddu moo lay wone Mohamed mu ngi fii da doon noddu fii noddu mooy xam ne ñëw na léegi-léeg mu dem juwaalu léegi-léeg mu dem feneen nooraan mais bu ñëw rek jàkk bi moo lay moo lay koy won ñi ko taxaw aussi indi ko li ko jëlee ci madame le maire ba ci président sant na leen bu baax a baax ndax lii bu ne ko ñun kese la duñ ci mun dara waaye ñoom ñoo ko toppatoo bu indi ko bu jébbalu ñu ko ñu suul ko ci suñu armel jullee ko kontaan nañ bu baax waaw ñuy sant yàlla rek di jaalaat mbokk yëpp di jaal di ko jaal tamit njiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wax dëgg yàlla xaaruñ woon ne koor bi nañ ko jot nii mu gaaw waaye yàlla dimbale nañu seen taxawaay tamit ñu jot ci koor bi tey ba mun koo uh, jébbal boromam kon ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla rek yàlla xaare ko àjjana di wax tamit wax dëgg yàlla jot nañu koor bi sant la wax naqar la ñu nekk waaye tamit am na benn diis diis benn fardo bu wàcc une partie di xaar rek que la lumière soit faite que état tamit bañ teg yëf yi ñu gën si jàpp gën a dëgëra daal ba yàlla leeral yëf